population de Nianing xanaa kaddu yu kaddu remerciement la vis-à-vis de Robert Ngor Ndiaye ki nga xamante ne ñun waxtaanee ñu ne ko demal nga gérer zone sud mais ñu ngi aussi remercier le charge de communication Ibra Diack un gars vraiment extraordinaire depuis que PASTEF là mais bi créer la coalition Diomaye 2024 il est là de nuit jour mais sans vraiment mu noppalu kon Ibra ñu ngi remercier bu baax on a besoin de gens comme toi ndaxte Ndeye Diouf wax na ko léegi combat bi nga xamante ne moom la ñu engagé combat su Malicounda bi mais combat jeunesse su Sénégal parce que on a envie de voir nos mamans mais nos pères ñu dem reposer ji ñu jeunes yi jël relève j'ai entendu notre maire boo xamante ne suñu population ñoo ko fal muy wax wax boo xamante ne tegginawul les jeunes Dombane maa ngi koy naqarlu di wax ne soo bàyyi su liggéeyee day ñaan doomam doon na ko mais ndey su liggéeyee day ñaan doomam doon na ko su demee benn benn ndey mun a liggéey di joxe doom kon dañuy sant yàlla di wax ne faut pas décourager forcer daaneel leen gars yi ñu dem tiise Sénégal ànd ak Bachir ak Diomaye et Sonko lu mu def rek ngeen xam ne euh, xarit lu am importance la ndaxte su ngeen seetloo Bachir njaga ñaaw la dëkk Sonko nekk Ziguinchor ñoom ñaar ñu nekk ay xarit ñu tuddante ay doom bi nga xamante ne projet bi mënul dem dafa gëstu xaritam mu ne ko yow laa ci wóolu wallaay laa kon ñun fii à Malicounda ma li ma doon wax rek kenn waruma xaajale ak Ibra Diak mii mais kenn waruma xaajale ak Ndeye Diouf man combat bi nga xamante ne moom mais combat bi nga xamante ne jeunesse su Malicounda moom la mooy être unis pour le développement de Malicounda. si on vous dit autre chose ko andu leen da ngeen di nax seen bopp que on a envie de voir un Malicounda meilleur